bonjour na ngeen def maa ngi leen di nuyu bu si nekk si tur ak sant di ñëwaat si vidéo yi may def rek juste pour lu jëriñ as suñu askan discours juste pour loo xam ne nii dinañu yee dinañu jëriñ tey dama am lu mooy indi di leen ko proposé muy benn site boo xam ne nii siwagul sit bi pour wutum xaalis la man nag euh, lu tax may proposer tout le temps di wax euh, xaalis liggéey parce que man loolu mooy développement développement personnel développement sa dëkk mooy il faut ndaw yi am lu ñu jàpp ndaw yi am lu ñuy liggéey waaw ku seetaan vidéo bi tamit na nga ko partager na ko yaatal parce que li may wax nii pour ñëpp la pour ñu jëriñu la parce que xaalis bi du génn gaal gi bu fekkee man maa ko def gañe si du génn gaal gi bu fekkee keneen na ko def gañe si du génn gaal gi te loolu moo ma intéressé li ma intéressé mooy nit ñi am si lu ñu jàpp nit ñi liggéey ndax ku liggéey jëriñ say mbokk jëriñ say waajur te loolu rek moo ma ñor moo tax ma leen di proposé di leen wax ngeen yaatal ko pour ñëpp mën a jëriñoo euh, comme dama fi waxoon les métiers de l'avenir maanaam euh, wax wàlla informatique di expliquer informatique ak métiers yu bëri yi si nekk si loolu si lancé boobu laa nekk aujourd'hui je vais vous proposer nekkuma juste pour critiquer wala pour wax sama xalaat mais aussi donner lu concret loo xam ne nit mun na ko gis xam ne liggéeya ngi nii kii li muy wax existe na soo looloo tax nag may proposer euh, sit bi sit bi site américain la siwul mais mun nga ko mun nga si gagner euro si xaalisu anglais wala si CFA de toute façon euh, li nga accepté ak ñoom loolu lañ lay fay site bi nag mi ngi tudd people per hour xam naa dañuy dem si ordonateur bi ma expliquer leen nu muy demee expliquer leen nan ngay gañee ay projet ak yan xeetu liggéey nga si mën a am ak nan nga si mën a jëriñoo ku si nekk mun nga si trouver liggéey parce que ay liggéey yu bëri bëri la nit ñi di proposer chaque jour donc nañ dem si ordinateur bi ma wax leen nu muy demee jaajëf. comme ñëw nañ ni si euh, ordinateur bi ñu ngi nii Google. Euh, li ngay njëkk def bu la neexee nga ñëw si Google bi nga def people per hour point com wala nga dem si bar bi nga def people per hour même day ñëw parce que dama ko doon per hour point com léegi mi ngi nii nga ibbi. site bi site baa nekk ni peoplepao.com mën nga def en tant que freelance wala nga am say projet yoo bugg a poster di wut loo benn liggéey boo bëgg a nit ku la ko liggéeyal mun nga ko nga ko fi proposer aussi soo xoolee mu ngi nii site bi nii lay demee puisque euh, un million et quelque ay projets yi si nekk ay business deux millions neuf cent presque trois millions de personnes yoo xam ne nii euh, freelance la ñuy def xaalis bi si bi si nit ñi di gagné xam ne frilance yi ñoo ko si gagné cent trente sept millions de dollars si waaw lii mooy kii yi nga xam ne jot nañ ko xam ay BBC génn nañ ko BBC génn woon na ko en ligne léegi nii euh, dañ lay embaucher si ay waxtu dila fay si ay. dañ euh, lay embauché si ay simili di la fay si ay waxtu <laughs> voilà léegi pour nga xam ni mu gaaw projet bi nii lay demee léegi yow fii dañuy expliquer comme si bi en anglais dañuy expliquer affaire bi nan lay demee léegi fu mu ne nii dangay ngay enregistré wu euh, looy njëkk def mooy enregistré wu mun nga ko bañ def tamit mun nga ñëw rek xoola euh, xool projet yi la si intéressé bu la neexee nga enregistré wu à travers sa email wala nga enregistré nga enregistré wu à travers sa Facebook soo enregistré wu mun nga dem si après boo buggee dugg si kii bi da ngay dem login mooy nga xam ne di nga mën a dem directement si sa si sa boite li nga xam ne moo ma intéressé mooy liggéey bi donc liggéey laa leen di woon offre yi moo nekk ni freelance yi ñi nga xam ne ay freelance lañ. Euh, la ñu soxla ñi nga xam ne projet yaa nekk nii si projet yi exemple yëpp ay offre la léegi offre yaa ngi nii freelance yaa ngi nii projet bu dee liggéey ngay war nga bëgg benn liggéey boo bëgg a def si internet bi boo defee buñ defee nii bés cherche projet da lay gis da ngay gis ne projet yaa ngi nii euh, projet yaa ngi nii exemple bi si kaw mi ngi fay 1000 mille cent et quelques euros cent et quelques euros mais looy def trois d animation seconde clip donc liggéey yaay nii yaa ngi yaa ngi liir euh, boo liiree da ngay gis liggéey par liggéey léegi liggéey liggéey moo nekk nii si côté bi nii fay gaa nekk nii fay gi moo nekk nii bu fekkee da nga bëgg a xool ne liggéey yi nga liir xool liggéey euh, liggéey yaa ngi nii yëpp ay liggéey la nii yëpp ay liggéey la logo design update wordpress site on page facebook and account e-learning platform french canadian transcription with automatic software software yëpp ay liggéey la soo ko xoolee mi ngi nii page bi jeexul ba presque ay cinq mille et quelques liggéey yoo xam ne nii ñi ngi si xaalis baa nekk nii exemple liggéey bi bu ñu la jëlee vingt huit euros la ñuy fay ñii quarante cinq huit euros ñii seen proposition ñu euro yi mais xam naa c'est discutable ñii soixante cinq euros comme liggéey bii ni web web développement to sell boutique product six cent quatorze euros donc dix dix euros par heure cent soixante dix yii yëpp ay liggéey la liggéey yaa nii yow yow yaay yow yaay xool ngay xool euh, liggéey bi nga xam ni jàpp ne mun nga ko def nga nga envoyé sa demande wax ne liggéey bi tàngam nangam sàngam ba xam mun naa ko def proposé ñoom ñooy xool nag ku ñuy jël exemple boo xoolee liggéey yi mun naa continuer su ma defee kii page bi day def recherche indiwaatal ma yeneen liggéey medical writer animation vidéo I need a new e-shop lii yëpp ay liggéey la illustration illustration for children book flyer design la nit lii yëpp exemple euh, animated video photoshop expert digital e-commerce site e-commerce sax xam ne après naa si defar pour expliquer leen parce que yëpp ay xeetu liggéey la boo amee temps yor sa ordinateur sa kër wala sa téléphone même kii bii nii am na application mun nga ko def sa téléphone exemple euh, boo su su ma bësee animated euh, vidéo boo buggee postuler da ngay seen da ngay bës fii nga postuler léegi exemple boo xoolee mun nga xool xam ne 17 personnes ñoom déjà postulé wu nañ pour si animated vidéo bi léegi waa ji expérience bi la soxla expert la soxla waaw boo xoolee we need uh, we need a six seconds video for a client who is explaining a quite complex concept in a fun and easy way maanaam uh, une minute vidéo la soxla boo xam ne da koy expliquer ay client am benn concept boo xam ne nii day day reetaanlu ba pare facile à comprendre so yaa bu fekkee yow xalaat nga ci wàllu vidéo mun nga postuler wu buñ la joxee kii bi fay la sa xaalis donc lii benn site la boo xam ne nii dama ko bëggoon yaatal rek pour ñi nga xam ne nii ñi ngi yëngu ci wàllu informatique ñi ci yënguwul peut-être mën nañ gis leneen parce que am na ay ay ay artistes yu nekk ci biir ñoo xam ne dessin lañ leen di soxla mais dessin aussi boo fekkee mun nga ko def ci wàllu ordinateur donc soo xoolee proposition yi du ñu jeex proposition yi da ngay da xool ba fa sa bët yam rek parce que presque ay cinq mille et quelques liggéey digital draw image yi laa doon wax xam ni dañuy mën a dessiner ci ordinateur ñoom it am nañ mën nañ fa am liggéey maanaam du du jeex donc li intéressant mooy xam nga li ñu lay fay xam nga ni ngay def da ngay proposer ne lii laa mën lii mooy sama qualité après ñoom bu ñu xoolee liggéey bi si yow la adéquat ñu jox la ko euh, nga foo ti nekk parce que euh, wàllu internet soxlaatuwul déplacement bien sûr y a yoo xam ne nii euh, bu pour nga def ko il faut nga déplacé wu dem sur place pour mun a def liggéey mais nag y a liggéey yoo xam ne nii internet facilité na nit ki fu mu nekk mun na liggéey ak moroomu liggéey moroom moroomam mu defar ko li mu ko soxla envoyé ko mu visionné ko xool ne lii la soxla ah voilà donc il y a plateformes yoo xam ne mooy permettre soxlaatuwul déplacement donc lii laa doon indi tey pour wax le proposition la liggéey la nit ñaa ngi si gagné euh, mun nga si gagné lu nekk donc il suffit nga am yenn capacité yi am yenn expérience yi di nga mën a trouver sa idéaliste fii si site bi. waaw euh, lii laa leen indiloon di leen wax ne site baa ku si nekk euh, mun nga si jéem a def say effort xool noo si trouver loo xam ne mun nga ko def soo ko gisulit mun nga ko partager ko mun na am ñeneen ñoo xam ne dinañ mën a trouver leneen lu ñu def lu ñu si mën a def euh, lii rek laa doon wax que ne dañu war a yaatal xam-xam yi yaatal loo xam ne nii yaa ngi si jëriñu jox ko keneen pour mu mun si jëriñu ndax ñu bu ñu boolee suñu doolee lu ñu bëgg dinañ ko am te dina tax tamit jeunes yi gën a comprendre métier informatique par njëriñ la am pour ñu mën si teel a situé wu à bas euh, loolu la woon di wax ku si am ay commentaire mun nga ko wax si suuf si commenté vidéo yi wax li nga xam ne nii xalaat am boo amee say proposition aussi ñu ngi leen di déglu ku si am yeneen xeetu liggéey aussi mën nga ko partager pour jeunes yi jëriñu si ñeneen jëriñu si ndax euh, bu ñëpp jëriñoo rek lépp day yomb développement day mun a am kon wasalaam beneen yoon naa ñëwaat si yeneen vidéo yoo xam ne lépp si wàllu liggéey la wàllu ut xaalis te mu nekk si internet bi dañ war ko yaatal nit ñi war si jëriñoo kon jaa ngeen jëf merci si suivre bi